thank you ndakaaru bu ñu nekk sànce boobu ndakaaru li ñu fi indi mooy Adja Rahmatou Seck Samb moom mi nga xam ne yàlla def ko may ci wàllu mbind moom li ñu fas yéene sargal gis nga tey collectivité la bi yëpp ñu ngi fi waa Sorano ñu ngi fi assemblée nationale euh, ki nga xam ne moom mooy tamit euh, Aliou Badara Bey di président des écrivains du Sénégal moom it mi ngi fi ànd ak ñi nga xam ne le pays de la collectivité lébu ñoom ñëpp ñu ngi fi teew tey ndeysaan fas yéene sargal mag Massi Sakkal jëmm joo xam ne tey yàlla daf ko may martaba ci wàllu bind kon nag ñu gis ne ñu ngi fas yéene continuer ak yéen cérémonie bi. Ablaye Matardio, Grand Serigne de Dakar, Monsieur Yen, représentant de Monsieur Abdul Latif Koulibaly, ministre de la Culture, Excellences les ambassadeurs, euh, Garaf, Saltigué, Gambour, Ndei Gambour, chers amis des lettres, chers parents venus euh, de partout, devant, sur cette place mythique devant la maison ouverte à tout vent, cette maison sans portail, de celui qui nous manque tant, j'ai nommé Alun Gagnebor. Ablaï Matar dans votre grande générosité, vous avez choisi de réunir tous les bougies. Ceux qui ont le front tourné vers l'océan, pêcheurs certes, mais chevaliers des mers, et ceux qui ont le front tourné vers le continent venant du Gander. Ils sont tous venus Mais Ablaï Matar, qui suis-je pour mériter tant d'honneur et tant de considération Sur cette place mythique, Dodgeby comme on dit, cette place mythique et symbole d'où tout partait et tout revenait. C'est de là que les pères fondateurs partaient. Ils étaient trois. Modou Koru Diagne, ancêtre de Ndegiréou. Mori Kodou Tchaou, ancêtre de Saltigué. Et Falifouli Aïsapay, ancêtres, ancêtres des girafes. Ils partaient essaimer la ville, essaimer les peintures pour sécuriser ce qui allait être de Dekerao. Ils allaient pour assurer la sécurité pour son peuple, la sécurité pour leur peuple, la santé, la sécurité, la prospérité. Ils partaient d'ici, ils sont allés à Fan, afin pour assurer que la population aurait toute sa santé. Il partait à Kassoum et à Soumbouyoun pour dire celui qui s'attaque sombrera. Ils partaient à Dieppel et là ils sont assurés qu'il y aura la prospérité. Y a-t-il plus prospère que Dakar? 0,30% du territoire qui accueille 30% de la population.